di muhammadin wala tamit fexem ba xadim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñi ñi ngi nuyu ñëpp di teg di bi ci xalifa fa si ahmadul mu jot leen ñu ko ci xalifa bu mag ba mooy cheikh muhammadul muntaxa xam naa bu bu ñu tuddee ñoom ñaar rek ñi ci des ñëpp danañ danañ ca dugg ndax man waxtu bi daa xat moo tax sëñ Moustapha moom nuyoo woon na nuyoo nuyoo bu jot suñu soo xujj lay kon yu bari na ma waaw waa kay kon de xam naa ko kon man man li ma war a li ma sëñ Baba sëñ Babacar li ma war a waxtaane man mooy a cheikh Mouhamadul Moustapha al aarif billaahi qiraatun fi siiratihi al atira maanaa cheikh Mouhamadul Moustapha aarif billaahi la kon kon man li li ko def aarif billaahi lay waxtaane man tomb boobu bu kon ci ci ci tënk buñ duggee ci xam naa amoon na ay tomb tarbiyatu cheikh Mouhamadou Moustapha ar-ruuhiya ihdaasiyaatuhu al-irfaaniya shahaadatul akaabiri xawla shaxsi karima ak shay min asari xam naa lu lu lu bari moom duy xaj waaye mbind mi mi ngi fi at tarbiyatu ruuhiya bu ma ko waxee jublu ci al inaabatu ilallaahi bi taskiyati nafsi wa saqlil basirati wal uruji ila maariji qudusil aqdas defar nit ba mu ba am connexion ko defar nit ba mu njëkk ba am connexion lu lu maanaa wax ji nag bu réyee nangam it lu simple la nag loo xam ne nit képp koy am nit nit moom lépp lu mu am rek simple la waaw lii moom nit doo nga koy def nit dong lañuy defar ba mel nii kooku kon lu simple kon waaw xam naa eh, am njàngam ak yooyu suñ sooju ku jëlee waxoon na ko kon sóoboom li ma jublu ci waxtaane ko nii it nag mooy damaa bëgg ñu jariñoo ko maanaa jariñoo ko ci ne maanaam lii ndax jàll na ndax lii may bëgg waxtaane ndax ndax ndax jàll na ba ci noonu walla jàllut bu dee jàllut ku ne ci noonu yaay tontu lu tax jàllut lii lii may bëgg waxtaanee nii ba xam ndax jàll na ba ci noonu am déet Cheikh Mouhamadul mustafa ca gànnaar sëñ ca nag galangalam moo ma nettali Cheikh Moustapha mbooloo ma ca ca la bokkoon sëñ Fallu ak sëñ Omar gelongal ak sëñ Maroqo Busu ñooña ña nga woon gànnaar ca mbooloo ma sëñ bi di leen tërbie tërbie gu metti bu bu dee ñi ma tudd moom àggoon na ci ne leen ñam wu fi ñëw te neen yéen bokku leen ci sëñ Thierno nee na sëñ lu nee na daanañ xiif a xiif ba ba ba di jaaj ji nu ñu koy waxati ab jaañ bi def ca ndox di ko naan waaye nag léeg sëñ bi woolu leen jël daakaane xooj ko jox leen ñu naan xam naa kon jànji bi ñuy lekk tax foofu ama solo ndax bu ëggut nit mën na koo roy al wax ji day àgg waaw day àgg ba ma sëkk sëñ bi ba cëg bi ña ña nga ca liggéey ba su su guddee dañuy fanaanee naafil la ak a sëñ bi day daan na leen jox tur lool nag daa mel na léegi moom xewi na man sëriñ si gisatu moom ñuy joxe tur sëñ bi jox ay tur bokk na ca loo xam ne sëñ Cerno Galangal moo ma ko nettali sëñ bi ko joxoon ñooñu baayam ca la bokk moom it baayam jox ko ko kon bokk na ca loola am na nu ñu jànge alxuraan ci juróom-ñaari xaaj yu ànd ki tur dog boo jàng ba noppi bis bu nekk am na looy sikar am na ca aw tur woo xam ne benn la benn tur benn baat dong la gaaw lool sëñ bi joxoon na leen ko bokkoon na ca la la mu leen joxoon secret bu ñuy tuddee sayful awliya sayful awliya nga xamante ne ah ngannaay la xam naa ngannaay la ndax bu ñu demee ba soxla ko ban koo jëfandikoo kon ñoom am na beneen boo xam ne secret boo xam ne mu safaa joxoon na ko kenn ci mag ñi fekk mag mooma sëñ Tuubaa joxoon na ko nga xamante ne kon sëñ bi kon kon kon foofu tomb boobu li mu fi am solo mooy Cheikh Moustapha jàllale na li ko sëñ Tuubaa joxoon joxoon na ko mag moo xam ne fekk na ko mu am ko ndax ma ne ko sëñ sëñ bi joxoon na ma ko kon moom jàllale am na kon am na waaw waaw ndax ndax bu ñu jàllale wut murit gi day màggat de ñaata million at moo des ci àdduna murit gii ma gis mënut a àgg foofa murit gii ma gis mënut a àgg million at million at ci kanam bari na suñu bi de million at lu fa àgg màggat boo yeesut te tur yàlla yii moo taxoon yëf yee di yees buñ ko téyee rek joxewuñ ko yëf yi day de kon al ihdaasiyatul irfaaniya tur yi ma doon wax li tax li tax ñu yor ko ma ne mooy shabakatun mubarmajatun bi waasitatil adkaari wal awraadi tuxiilu ila nasaqin maarifiyin wifqa mansuumatil asmaai wa sifaat tur yooyu sufiyanke yi di jox donga ya dafa am lu muy def ci ñoom day day tabax ci ñoom nit ku ñuy tuddee al arif billaahi arif billaahi yanu ay ay paanaki siwooki nangam dongo aka bayaka nangam taxut nga doon arif billaahi de faw ñu connecté la ci ay tur yàlla tur yàlla yoo xam ne day lëkkaloo ak tur yàlla yi ak melokaanam yi nga xam ne su mboom da lay wàll léegi jikko loolu moom mënut a ñàkk moom kuy tëbee ku nekk te joxewoo tur yàlla insha allah taala waa ji dana fa nekk ba ba màggat du xam sero man ngaa am ngërëm dem ngërëm ngërëm te ngërëm it sëñ ka ko wax ne ko kii sama soxnaa gërëm naa ko mu ne ko yow yow ku la gërëm sëb sëñ bu dee gërëmuñ ko bu la gërëmee ngërëm la fu mu jëm kon Cheikh Mouhamadou Moustapha ci tënk noonu ma wax moo di alfardul jaami fardul jaami alfardul jaami li asraaril asmaa'i wa sifaat almadharu atam baxdal abdul xadim alayhi akbaru iwaanullahi albaqil xadim maanaam sëñ sëñ Cheikh Moustapha ana sëñ baati sëñ ba saw sëñ ba na saw lu am solo xam nga fii dama ne sëñ Cheikh Moustapha mooy alfadul jaamia yaa sëñ asmaa wa sifaat al almathru atam salaay salaama ci moom la gën a fës ginaaw sëñ Bamba waaye nag am na fi transit bu amoon sëñ Banda Saw mag ñi nee ñu sëñ Banda Saw xutbaa léegi nekk na ci loxom ab diir soog a ñëw ci loxoom Cheikh Moustapha foofu lu am solo la sëñ Banda Saw saw la sant saw transit yëf yi transit na ci moom de soog a agsi ci ci moom foofu point la bu bu tuuti bu rëy lool bu am solo ci man kon Cheikh Moustapha ab suuf yànkee la woon dara noppaloo jàng alxuraan waaw sëñ Modou Rokhaya moo moo wax loolu nee na moom Cheikh Moustapha su ma saa sonn day noppaloo alxuraan xam nga Cheikh Moustapha wax nañ ne ci mujj gi sëñ Cheikh Gaïndé Fatma dem dem ci médecin tubaab bi ñu xool ko ba xam daal lu ko daal médecin bi ne dara dalu ko daru nelaw mu ne mu ne wax na dëgg de ba sëñ bi fanaanee Touba ak tey fàttaliku ma fu ma gëmmi bët lu ko waral laataa xusoo ci sinatun wala naw ma am na fooy toll foo xamante ne boo nelawee lépp yàqu moo tax du ko sañ kon moom kon moom daana góor góorlu ci xuus ci secret yi maarifatu billaa almaarifatu billaa yi nag bokk almaarifa képp de am na yeneen daara yu yu dul murit yi wax maarifa maarifa moom kooku leneen la maarifa lañuy ñuy tal sam rek nangami yoon nga di ko wedd laa ilaha illa bokkut ak bii de bii almarifatu billah mooy ngay xamee ci yàlla ngay xamee ci leeru yàlla allahu nuuru samaawaati wal ard fenkat na fépp sa xol mu fenkat ci sa xol fenkat fépp almarayal wahabiya ni ko ibnu arabiye di di waxee yow nag nga mën a capturer nag image loolu mooy almarifatu billah bokk na ci tegtal yi lay xamal ne Cheikh Modou Moustapha àggoon na ca àggoon nan na ca njobbaxtan la mooy leetar bii mu yónnee woon sëñ Masamba mi mi ngi ci téere bi mi mi ngi ci téere bi sëñ Masamba di ko laaj ne ko waaw yàlla su mayee ab jaam mu wëkkiilu wëkkiilu ko dogu bu dee sàkku déyaale ak naka lay def def yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ndax yonent bi mooy doon dox diggante ak ak borom bi wala moom mbir ma diggante ak ak la salaay salaam du ca bokk te salaay salaam kat mooy kerkeraanu jaam ñi jëm ci borom bi waaw ndax salaay salaam day teew booba ca bu dee deyal ak wa illaa mu mu ne ko mu ne ko boo ci xamee dara gaawal gaawal foofu li fi li fi neexaat mooy Cheikh Moustapha gag na yaakaar ci taalibe bi bayam Cheikh Moustapha yaakaar ci taalibe bi bayam lu am njëriñ la Suleymaan ak ak dongaam ba ba mu bëggee andi Ansu Balxiis mën na koo andi mën naa am mën na koo andi mën naa am waaye ba mu ko soxlaa indi dongaam ba ko andi loolu kon lu am solo la maanaam léegi murit googu bu bu bu jàlloon akay baax waay akay baax waay waaw sëñ bi sëñ Masamba xool leetar ba daal di ne ko tontu li de mooy jaam bi su ko yàlla mayee mu wakkiilu ci yàlla wakkiilu ko dogu ñaari mbir mun mu munu caa ñàkk benn mu nekk kuy sóobu sóobu yàlla ci sóobu di tàmbali dox ba wala mu nekk aarif moom bëgg a àgg jëm ci yàlla di deyaaleeg boroomam ba noppi du mooyu sallallahu alayhi wa sallam des na ko dàq rëbb ko tëj buntu bi la la si Moussa Ka wax nag naan Moustapha mënut a jomba way ku koy jomba way buntam la ñuy tëj ba du tuwe sallallahu alayhi wa sallam moom ko ko fi ba al mu ne ko mu ne ko nag su du nangu ci moom dara moo xam bari na moo moo xam néew na lu dul ci sallallahu alayhi ci lay sóobu daal di dina ko nag ab jaam du am jege ci boroomam lu may mu jaare ko ci sallallahu alayhi wa sallam daal di ko nag bu dee jaam boobu aarif billaahi la nga xam ne nu nan lay mel mu ne ko moom aarif billaahi bi day gis salaay salaama ci ay bëtam yaqasatan ci loolu ay nelaw di wax ak moom saa bu ko soobee kooku kooku la sama sàmbari tuddee aarif bi la mu mooy tooy fi moom fu mu nga soobe muy muy gis boroomam ci xolam nee na ci lu ñuy wax mujaahada ci waxi suufiyanke yi ci ci xaal yépp kon day léeg-léeg mu am lu xew diggante moom ak sallallahu alayhi wasallam ci ay deyaale yoo xam ne kenn du ko xam kudur yàlla léeg mu wéet ak boroomam wéetaay woo xam ne sallallahu alayhi wasallam day mel ne fekkewu ko mu ne ko loolu nag mu ne su ko wuññi ndax loolu mi ngi génn daairatul xaqiqa ak sharia man fii laa jëkk a gisee ne kon xaqiqa ak sharia am na leneen man man man moom xaqiqa ak sharia laa xamoon léegi kon am na kon leneen mu ne kon loolu am am nañ daal di dine ko borom bi moo waxoon wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna danaa bind lu ngeen xamut kon mu ne ko nag ak yeete baraana boo xam ne loolu dana am ci ci kumali awliyaa yi ci ay ay xawaariq xawaariqul aada ajaib ay kémtaan kal ni ni ko dañ leen mbir yi kusufaat wu ñu leen kiiraay yi yi dañ ci andi bay nee na bi ko suñu fa lu yóbboo màkka jox ko dugub lu am solo fàtte naa la ko wax yàlla nga am dem dem diwén du suñu fan lu jox ko dugub bi suuna ne ko boo demee sottil ma ko ca xëti màkka ya ak madina bay xaalis yi nee na bi ma ñëwee bëgg koo nettali mu ne ma dara mëtumaa wax ba ngoy sotti xëti ya tongoon ci sa kaw tànk yi maa ngi jàkkaloo moom kusu kusufaat yi la kusufaat yi moom lay layal wal wal maarif xam-xam yoo xam ne néewu ci téere yi bilaa tarjuwaan baynahum nga xamante ne moom su suñu xamal mbir mu ne ko nag waaye yooyu yëpp de bu amee ñu xam ne kat mahal ixaani bi ann al amra lam yakun wala yakunu mun min duni nabi sallallahu alayhi wasallam bi yow mu ne kay ashadu an laa ilaha illallah képp taxul nga àgg fii wa an muhammad rasulullah sallallahu alayhi képp tax nga àgg ko kon kon moom sallallahu alayhi wasallam abubakar ashibli al baghdadi waxoon na ko sallallahu alayhi wasallam ci koy gis ne ko man day ah mbaa moom li may def kiiwut man de bu ma ne ma ci maa teg keneen mu ne ko mu ne ne laa ilaha illa maa nga maa ma ne waaw laa ilaha illallah moo ko xamal kon kon sëñ ne ko ndax ndax ndax li anna allaha yafalu ma yashaau wa yaxkumu ma yurid wa yuxkimu ahadan minhum bi tilka almasiya may yooyu nag du ko may kenn lu may ci barkeb sallallahu taala alayhi wa sallam kon ma maa ngi wax ci ay manaaxibam dara jàppe ko jàppe ko man xaba sëñ sëñ Mbakke Buso daa dem fii ci Saalum sëñ Siiru Muxtaar Ka seen dëkk boobu la dem sëñ Cheikh Ka moomu bàyyi sëñ Siiru Muxtaar Ka yoroon mbindum loxoom sëñ Cheikh Moustapha ab secret mu wan ko sëñ Masamba sëñ Masamba ne ko damaa bëgg nga ma bindal la ko sottil la ko te nga jox ma ndey ji sëñ Masamba sëñ Cheikh Ka nangu xam man bu mën a wax dëgg yàlla ko ah sëñ bi dafa yàlla li nga am ëpp na nag doo ma sarax nag mooy doo ma ko sarax nag <laughs> bindal ko ko sottil ko ko jël ndey ja muy bindum Cheikh Moustapha ma bàyyil ko fa mbindam bo sëñ Cheikh xam naa comme ca comme ca laay biir wan la ko kon kon kon kon foofu li fi feeñ mooy sëñ Mbàkke Buso mu tedd mu mag moomee kàngam boobee baay bu tedd boobee sëñ bu tedd boobee ba noppi di barkeelu mbindum loxoom Cheikh Moustapha loolu kon tabaru kon la bi asaris eh, salihin yaakaar naa kon maa ngi tënk de yaakaar naa moom waxtu wi du jeex moom waaw waaw Cheikh Ibrahima Diop al al al al machari yi ko wax ba yëf yi mettee ata Moustapha badral buduri mujaddidan wa fajr al huda min janibi wa fajr huda min janibi bayhi tabassama loolu moom doy na Cheikh Moustapha ba yëf yi mettee moo ñëw yeesal ngir loolu moom loolu moom doy na buñ dëkkee ca Cheikh Abdourahman su Moustapha tudd ko rek alalawi wax na lu am solo wa tashhad an al Mustafa ahmadul wara akaabiru hada al asri moom moom kooka kon mooy mbër ma ndax walam yastaxil illaa bi maa yuksibul irsiha an kabirin ba'da dakabirin la mu doon noonu képp moom la ca yaakaar naa bu ñu demee ci keneen ku ñu wax maa anta jóob al nee na nee na sëtub mëndumbi la mu ne yamshi ala qadami l ixlaasi munqatian an il wujudi ila al mawjudi zi qidami bayit woowu moom a ci gën a neex moom Cheikh Moustapha ma ngay doxe tànk bi sellal ak a néew ci ñi ma xam sellal baat bi ba noppi nag dogu ci dind bi am ngi existence bi mu da ko fàtte ngir yàlla oh loolu sëñ bi waxam ji neex na yabsha ala qadamil ixlaasi munqatian anil wujudi ilal mawjudi dil qidami xata xada ku def li moom faw mu mujj wa huwa qutbun laa yumaasiluhu fi l ilmi waddiini aw fi l juudi wal himami kooku moom kon su du neex a jot waaye nag inaayirun sabaxat xam xablal wilayati min rabbil bariyati muulil fadli wal karami loolu moom jiitu na judd ba kon moom waxam je kon neex na lool xam naa sëñ Moustapha jumbut asaari Cheikh Moustapha yi dama ci andi dara du xaw xat ni xuraan Cheikh Moustapha ca Taïf buñ ma joxoon na leen ñaan goo xam ne buñ dee buñ dee xat mu moom la ñuy xat moo aouzu billaahi mina shaytaani rajiim maa xalaqa ñett bismillaahi la si laay duru ma si seen di wasma wasum alim ñett allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa hablana bi jaahi maxfiratan asman warhamna wansurna wasturna bi sitikal jamili yaa wali yaa wakilu wa aafina fi diinina wa dunyaana waxsimna min jamil makarihi fi dunia wal axirati waxmi janabana an jamil fitani wal mihani wa aslih ma minna ma dahara wa batan kay nu sabihaka kasira wa naskuruka kasira innaka kunta bina basira yaatal mulki wal malakut wal izzati wal jabarut yaa man huwa ala kulli shay'in qadir ñetti yoon amin yaa rabbal amin loolu ab xat mu la Sëriñ Tuubaa ko joxe woon bu dee eh, bisub eh, insiné na muharram bi sëñ Abdul Xadim Mbàkke sëñ Modou Bara ngi mi ngi toog ci moom laa ko dégg woon sëñ Modou Bara mi ma laaj ko ko mu ne ma moo ma woo bés ci magal gi ne ma bindal ab yoor yoor daal di ko koy dicté bismillahi rahmani rahim ama baad laxat amatu jamal muridina bi sadaqati wa du'a fil mu muwafiq taasi asar min taarixil muharram kon moom nee digal na ci fukki fan ak juróom ñeent yi ci muharram bi nga xam ne moo dëppoo muharram wam sasin ba ndax ndax boobu ci la sunu waaje dellu ca boroomam dal di koy ñaanal ñaanal saxaaba yi ak umma bi ak awliya ak umma bi al aymal mutahidin daal di ne nag wa xiraati ay ay ayatul kursi samaaniya maraat jàng jàng ayatul kursi yi juróom-ñetti yoon boo noppee teg ci allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa hab li cheikhina muhammad ibni muhammad ibni habibillah tabaraka wa taala maa nawaahu li nafsihi wa hab li ummati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama maa nawaahu ahmad ibni muhammad lahum abadan amin ya rabbal alamin innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin daal di teg fanweeri lixlaas sa sa sëñ Modou Bara ne woon naa lii nañ ko bind ay tableau affiche yoo xam ne teg ko ci ci ci penc yi balaa bis ba ku romb man koo jàng man koo capturer ci sa téléphone xam xamaa nag mas naa koy wax benn jànkatu arab jànkatu arab bi nag dañoo xaw a yewati ko moom maanaam léegi ñaan gii ma wax allahumma salli wa sallam jooju kooku dem ah matu ko déedéet déedéet bala nga xam ne mat na ko euh, wirdul xaatim bii tarjumaan jeg rek laa wax man danaa ci ëf mu sedd kese jàng tarjumaan di dong ci la bokku de arab yii arab yuñ côté la du du du yi ku dégg arab arab yi tax taxu si nu mënu mënta seddal dara kii kii arab yuñ côté la ay côté lañ ci def waaye du du arab yi kon moom koo xam ne gëm nga loola jànge ko nii ko Cheikh Mouhamadul Moustapha ci waxee kon de xanaa sëñ bi kon ëpp lu ma yeesu lu ma salaamaaleykum taala wa barkatu jàmbaar nga jàmbaar nga tubarkalla <laughs> macha allah Cheikh Moustapha kon dolli nañu bu baax ci sëriñ Modou Moustapha ñu xam tamit wàllu gi nga xam ne mooy liñ naan spiritualité al bon de ruux yi Cheikh Moustapha maa ngi sàkku ci turu sëñ moo du Baara bi jiite commission culturelle bi duwaawu xatmul xuraan bi nga fexe ma ngoog ñu jot ci man koo yaatal ñëpp ñëpp di ko def ñaan gii nga xam ne it sëñ Modou Moustapha ko digle ci bisub ashruna muharram maanaam